lii moom maa ngi ziare ñépp nag lii daal fi ma dale mooy suma buntu kër sama biir kër sama biir kër sama buntu kër la ma dale ndax dama xëy dimanche génn ndegam man ci mbedd mu sew laa dëkk séen naa oto bu ñuul gaare ci fi mbedd mi jeexee mais pour man suñ dëkkandoo yi ñoo gaare foofu daal bàyyiwuma ci xel ma bàyyi noonu léegi bi ma xëyee altine comme démb bu ma xëy daal di préparé ndax damay marché occas laay xëy préparé génn bi ma génnee bay dem ndajeeg fekk ma ma war dajeeg waa ji waa ji nga xam ne moo moom moom mooy agresseur bi ma war dajeeg moom bi ma war dajeeg moom ma di ko moytu ngir bañ a jàkkaarloog moom moytu ko nii waa ji fekk ma fi ma taxaw may wax ak Faati Bey mu daal di may ñëw rek këf li ma yor fël na bu ma këpp mu këf li ma yor aw ñag mi fekk na bi ñuy këf saak bi ma taxaw mu këf saag bi ma yuuxu yuuxu yuuxu dara ndeket oto la gaare ñaari fan yàlla mu di ma kar di ma xaar ñun nag ay jigéen la. 11h pile ndax man 11h50 laa gëj ci ligne bi 11h56 laa gëj ci ligne bi xam naa ma préparé bi may génn 11h jot na 11h pile daal lañ lañ ma lañ ma kar dogaale ma kii kar ma ci mii mbedd kii kar ma ci mii mbedd ñu fëkk sama alal. moom li ci nekkoon téeméeri junni tegal na. ba noppi ay portable sama ñaari portable sama sama samay carte crédit. samay carte banque samay samay carte d'identité samay samay bagage yu sew daal ngi ci samay garab ak yëpp ngi ci biir saak bi ba ci sama machine rotation lépp ñu jël ko yóbbu dañ maa yàgg topp wala ñu ñu ñu xaw ma nan daal man daal xaw ma man sa wax dëgg yàlla ndax jigéen ju ndaw juy daan jigéen juy daan dooleem sa sut ci kenn di magum jëmm di dóor góorgóorlu di dóor waaram nga dajeeg moom ci mbedd fëkk la mu yor di ko tëru ñaari fan lii daal man jaaxal na ma man xaalisu banque ndax noonu dañu jël ci banque rek di lebantu di jënd ba ma ba may dem keroog woo naa banque ba ne ko maa ngi ñëw muy altine mu tëru ma jël la ma yor maa ngi nii toog ne toog ci ma dara nii maa ngi nii toog altine la am ci 11h ñëw na fi dimanche ñëw fi altine taxaw na fee ca pot lampe bee ba yàlla def ma génn mu daw si karma tatafu ma nangu la ma yor ñëpp a ko fekke koñ bépp fekke nañ ko sëriñ si nag maa ngi leen di ñaan ganaaw yéen moom tubaa oto yu ñuul yi def contre plaque yi ñu ba ko xale góor yi nga xam ne dañuy xëy toog ci buntu kër nit ñi te defuñu fa dara kuñ fekket sa buntu kër nga ne ko jógal maa taxaw fii ci internet bi wax nëbbatuuma làqatuuma na ma ñëpp dégg na ma Sénégal dégg Touba nag fi mu ne nii yuuxu nañu wala nañu ñëpp dimbali insécurité bi ëpp na. mooy garab yi bu génne woon nii danañ ko jàpp. waaw léegi ba bedd la. nga fee ne fa la waa ji génne waaw. ah. waaw ah? fii la ma fekk ma taxaw di wax ak xale bi daa doon ah, waaw xale bi moo doon wax na ñëw na ñëw na. xale bi nag yéen ah, ma gis ma bi dafay gis rek maanaam day xale bu ndaw waaye da koo mu ne ñëw na mu rombaat ko mu ne ñëw na xam nga yoon la. da ko fee gis ay yoon yoon moo. dafa maanaam dafa mel ne day gis gis lay def gis. kon bii kañ saa fii. wala fii la ñàpp ñàpp yi daw. yow fan la taxaw la a dajeeg moom danaa ko def. ma taxaw nii rek. fee jaar fee. nii la génn fii Potelane nii la aw Potelane benn nii ne di ko xaar bi mu sàccee nag ba jënd saak bi daw oto bi daa arrière ba ci kër gi taxaloo man nga xamee duñ ko gis. yow doon jëm nañ dogalal nangu saak bi def nii. la mel bi nii la mel. kon oto bi kaw xaar après waa ji daw. xaju fi xaju fi xaju fi bu fekk na. mais fekk naa kay dama doon bale sama buntu kër di bale maag sama tante grand bi romb na deux fois sama rakk bi naan ko ñëw na mais faale ko mais ba tey comprendre ma lan la après si lañ bale ba pare. sama rakk bi bi naan ko na faale ko. loolu mooy lan. mu dafa tàmm kuy ñëw daf lay gàttandu naan ñëw na mu koy gàttandu faale ko après moom mu jàll rombaat. mane ne ma ne sama tante kii ñàkk na kees de xale bu ndaw xamul daal di wax doo ko sax uyu mu romb dem après sama xarit bi gis na taxi mu ñëw na ko borom taxi bi looy def fii mu ne ko dama paan may ma ndox mu may ko ndox après kenn ki taw trois trois personnes nañ kenn ki toog si bunt biti bi kenn ki di otante moom téléphone moom mu ngi xool mair bi ndax génn na am déet bi maire bi génnee ci la ko otafal mu ne ko génn na baa nga taxaw sama xarit bi nekk fii moom moo ma ko wax mu ne mu ngi wootante foofu téléphone mu ko génn bi séen naa koy mais gisuma ko bu baax oto bu ñuul na dama koo séen rek mën na ko génn na pare mu kar ko xale bi naan ñëw na maire bi na ko xanaa kon kii lay wax ak garant bii di ñëw a pare mu romb këf saak bi daw biñ koy këf nag man may man maa ngi si biir damaa génn dégg yu koy génn topp coow garant bi romb sama bi mu koy këf mu ngi taxaw moo ak moom sama tante nee na garant bi ñu romb deux fois boo naan garant bi dafa ñàkkee sa moom la